asalaamualeykum sunu mbokk internet yi maa ngi leen di siyaar baax di leen nuyu di am kontante ak mbégte lool jàkkaarloog yéen ci seen chaîne bi nga xamee ni moom mooy MIG TV waaye émission bi nga xamee ni moom mooy ëttu na di ëtt boo xamee ni fay waxtaane day ay mbir yu am solo lu tax mbir yi di am solo ndax damay faral di wax ni li may wax mbaa itam soobu ariya njariñ nga la mu doon du génération bi tey waaye génération bi bëgg ñëw la lu tax mu nekk génération bi bëgg ñëw moo di ne wax bu ame solo day continué di fi nekk génération yu bari saa bu ñëwee di ko fi fekk am na ci solo histoire bi damay faral di wax ni dana am solo lool ci immigré yi ñu koy bàyyi xel ndax nit a ngi nii tukki at yu bari ñibbisi ci réew mi te fii muy wax ak yéen bu nu ko dimbaliwul ci ordonnance walla bu nu ko mayul paas ñaar fukk du dem fii ak géejawaay mbaa sax fii ak Kër li ko yóbbee loolu lépp du dara lu ndaw di am élégance intelligence ba pare am licence mais de la apporter dara lu parce que bari na ay immigré yoo ne ay bu ñuy am alal di dugg ci néegu sëy dañuy signé ay pacte yoo xamee ni su ëllëgee pacte yooyu mën na leen sonal ndax kii dafa doon tukki am alal la di góorgóorlu am soxna di mariage ak moom am ay papier ay kayit yoo xam ne def ko signé ak soxna ginnaaw ñoom ñaar sëy nañu sëy bu yàgg te yàggul ndax sëy am benn doom am juróomi at daanaka ñeent at ak genn wàll sëy ba tas bi sëy bi tasee fekk waa ji ci boppu moom rendewul compte ne bi mu jëndee terrain bi laata mu koy tabax mooy un heure bi mu njëkk a def damay résumer heure bi mu def bi mu jëndee terrain bi daf ko def ci kayit ndaw si tabaxul terrain bi moo boobu mooy un doy moy bi mu yëkkatee kër gi ba kër gi pare mooy premier kër bi mu njëkk am bi mu koy jox agent ndaw si moo yóbbu contrat agent bi si kër gi maanaam loyer bi ñu ko encaissé pare agent bi ci ndaw ci la koy jox ndaw ci moo koy transféré banque boo xam ne compte boo xam ne moom ndaw ci boppam turu compte yooyu moom moo ci nekk ñaar ñett bi gëna a yéeme moom mooy waaja ci boppam bi muy sëy ak euh, ndaw si bari na bari na ay bari wax yoo xamee ni du ci doon rendre compte moom ni ëllëg mun na ko indil ay jafe-jafe ban la moo di ne bor yi nga xam ne doon def banque pere bor yooyu wax ndaw si ci turu wax ji la koy jëlee wax yi moom mooy dépare banque mën ko vidé ndaw si maanaam bor yi ci turu wax ji la nekk ba pare aussi mu signé ak ndaw si ni alal bu ñu sëyee alal di ñun ñoo koy bokk di gën a garaaw yàlla dogal nekk seen sëy ba gaaw na gaawul tas mais lan moo indi sëy boobu tas lu moo ko indi lu ko indi parce que xale bu góor gi ci boppam moom nee moom moo nettali de boppam mun ma daaw de man su ma jógee itali ñëw Sénégal duma nekk góor mais su ma delloo damay nekk góor ma def ko sama deux vacances ci analyste bi ma ko marié ma ne kon baxna néné nee mu ñëw sama benn daniel vacances bima ma def ma seq ak mom mais duma ma goor yalla duma tan sama benn xarit ak mom ci lolu xarit bi xamoon ko it fon ko essayer beneen jigéen néna daawul daaw ñëk laa té mu wutu wuti jëblanté jëflante moom fay ko yëg sama bopp néné mais bima ma ma nekk ak soxna si duma sama bopp ma wax ko ko mom ne ko man daal dama gis ni daal dama yëg sama bopp su ma nekkee ci yow te yow sax remarqué nga loolu ndaw si ne ko waaw ngay dem nga xool sa bopp ndax sëy moom bànneex da caa bokk ndeke boobu ndaw si ci boppam ak ay mbokkum yaayam tantam ñoom prévoir nañu yi nga xam ne moom la ndaw ci amee position bu normal waa ji waa ji yombul de waa ji tëlewul de mais ñoom goro yooyu ñoo def tel sot ko ba waa ji du yéeg boppam ci néegu sëy pour ndaw ci mën a am àpp te bu mën a ñaan baat bénéfice yi nga xam ne ndaw ci téye na ko di avantage ñu mën koo barkeeloo damay faral di wax ne émission bi bu ma koy wax man yow mi koy seetaan na sa xel di xalaat ni yow ay de millions personne, ñoom ñu ci bi ñoo parce que toi nee à temps de paix nous préparons la guerre maanaam suis bi ngay am mbégte akum kontaan ci ngay sóoraale ne ngi ñëw ci sa xel war a ci yow parce que ay jaxase ngay def saa bu affaire yi neexee pare woo attention naqare nga ñëw danse rek ngay def mu yóbbee waa danse yi mu nekk mais fan la histoire bi jëm ak fan la mujj ak ñoom mu ne ma daaw de mën na ko naam mu ne ma seeti naa kilifa bu baax di sëriñ waxtaan ak moom mu ne ma yoomuloo téléwoo dañ laa téye ne ma waxtaan ak samay mbokk ñu ma war a waxtaanal waxtaan ak yaayu sama soxna yaayu soxna si xamal na ko ne sëy bu amatul bànneex mën nañ koo tas waa ji ne ko déedéet dinaa ci sàkk ay pexe bi mu ñu béen dañ ne anam moom ci la yaayu xale bu jigéen bi ak xale bu jigéen ci boppam dox seeni mbir ñoom ba tënk mbir yi ci yoon ba wuti avocat te dara xewagul nee na ma daaw de man sama jabar ak sama goro wut nañu avocat bu yàgg préparé seen dossier divorce bi bu yàgg te man sax li xew dafa xëy bis nga ne ma xëy bis rek sama jabar ma woo ko waxtaan ba ba wax lépp rafet ne dama coupé yaay am ko ni ma waaw dama bëggoon nga may ko baat parce que amatul bànneex ci néegu sëy bi nàngam nangam nangam. li lay wan ni dañu ko def ku monté moo dañu ko menacé def ko mbir yu xabtal ko mu fase ndaw si dañ ko xabtal galaaj mu fase ndaw si comme fase na gëlëm na xamul li xew ñibbi si na ci réew mi dem na tribunal def na tas mariage bi après mariage bi tas na ko moom six mois après ci la xel mi doogu ñëw ni moom perte na lu ëpp ci genn wàll ci ay biens banque war ko topp fayew ko yi bari waa ku ko ndaw su dugaloon xabtal nañ ko mu fas a jabar ji téeriñ ko ala ba mu yoom nekk yooyu yëpp dara amu ci moom perjotu ko dañ ko téye ala ba pare xabtal mu fas ndaw si li gën a yéeme moom mooy galaaj boobu jàpp na ko ba moom mëntul delluwaat bitim réew jaxasoo na feebar na xel mi dem na ñaari at mu topp ci réew mi yoo xam ne àndul ak sagoom bu dul woon sax yoon banque dana ko doon tëjlu parce que ñu ko xool dañu xam ne kii physiquement mentalement xel mi dafa dem ku amul 19 millions banque saisir sa benn kër bi nga dese woon benn doom nga am solo ci yoon yóbbu na ko dem nekkutoo góor xabtal nañ la nga fas a daw si lan moo ko waral alal bi mu amee moom signé contrat ak ndaw si ay signé yoo xam ne rendre ko compte mu leçon bu am importance boo xamee ni immigré yi war nañ ci bàyyi xel bari na lu leen jigéen ñi di dugal ci ay mbir yoo xam ne doon ko maîtriser parce que ñu bari ci immigré yi dafa am fu ñu jógee rek yàlla bu wër nam bi dem réew mais avant xel mi di ñëw avant expérience bi di ñëw fekk c'est trop ndax immigré yu bari nax nañ leen ci mbiru néegu sëy jël seen alal nax nañ leen ci mbiru mbànk jël seen alal nax nañ leen ci mbiru suuf ak fu ne jël seen alal te réew mi ma nekk nii lu ci waaye di mën a moytu moytuwoo jigéen moytuwoo dara soo ñàkkee da moytu jigéen soo amee da moytu jigéen booy wut da moytu jigéen so wuté ba am da ngay moytu jigen bo amagul dara da ngay moytu jigen mu ben waxtu bu ko nit war ñibi ñaar ñaari at nga top ci nit ñi dellu watu biti bitim réew amal nga dis na million bank febar nga tu góor sa defar dem ne pet nga sa kër léegi nak say mbokk mu das di korkoral di takale ba nga tané tey su may wax ak yéen nii kalandoo lay dawal kalandoo moom la muudu muudu mu yor te ci korkoral moom may ko benn mbokkam soxna actuellement ci lu nekk benn mbokkam lañ ko mujj may amal nag moom benn doom mu taaba taaba ci kalandoo li naan yàgg naa ko wax ne gis nga ba lu baax lu baax rek nga yam ndax dama yëg oto moom waji kalando mooy yóbbu fuma dem ci biir oto bi moom ñuy waxtaan mu xool li ma yow te man xaw a ñu ñi xam yaa ngi mën a ko man la diw may def nangam nangam ci oto bi la ma raconté bi lay histoire moom ci oto bi la ma raconté bi keroog dama ànd ak moom ba dépassé ma doon def concentré ci li wax mu Clara mu ma man immi muudu muudu laa woon nettali ma jële histoire bi mu jaar te jigéen képp moo ko yóbbee koo xam ni fond revenir maam li mu amoon ci addiyee ci alal ci ni mu toll ci fond nee na ma dépassé woon naa cent cinquante millions francs CFA ci li ma denc ci banque yeeg li ma investi ci ay kër ak yu demee mais tey kalaan lay dawal ma tey du ma heure bu neexee damay wàccaale douze mille wala neuf mille ci ku daan ci cent cinquante millions franc fa te loolu lépp jigéen képp moo ko ko yóbbee ak ngoro yu bon ak tamit sàngan koo xamee ni boo amee kattan danga koy sàngan sa bopp te suwaar yu yéeme te doy waar xam ni ndaw lu ne war na ci jële ay njàngat ku ne war na ci jële ay njàkkat waxatu naa baat bi ne waxtu bi ngay bëgg akum kontaan te ci ngay xalaat ne leneen na ngi ñëw kon il faut que prudent yow mi nekk ndaw di toll ci wut mbaa itam nga toll ci néewu sëy mbaa nga nekk immigré di am ci luy dugg na xool bu baax li ngay def ak am solo émission bi li ko tax a jóg du xaste du weeraate du uññi benn sutura kenn mais mooy laayante biir ngir kenn ku ne mën ci jël li ko ci jariñ bàyyi li ko ci jariñu mais aussi saa boo ko déglu ba pare na nga abonné ci chaîne bi post ci classe bi même boo ne commentaire na nga commentaire mais aussi numéro bi nekk ci bande l'écran bi ñun mooy suñu numéro saa boo ci wootee rek di nga mën a jot jërë ngeen jëf